waaw li al panel bi waxtan moy waxtan euh ci nekkinu jigen ni waxtan ci sen ak ak yelef lu nga xam day am ci at yu nek at bu dellusee bu dellusee mars lañ koy def 8 mars nak lañ ko wara def mais comme mois euh, mois de mars buñ ci nekké rek mën nañ ko ci def bala mo jeex donc ci lool mon taxa a tay pour wax ci ak ak yelef jigen ni wax fu sen xex yam wax ci li nga xamne ne lañu wara Euh, jëli ah, li nga xam ne amul ci seen i droit lu nga xam ne da cee manqué ñu war koo jëli donc loolu mooy xeex bi donc xool nan lañ ci war a taxawee pour loolu mën a am donc boo déggee ci suñu waxtaan nee nañu war nañu def ay réflexion war nañu def ay séminaire war nañu toog waxtaanaat xoolaat loi yi càmbar leen xool lan moo ci am ndax lan lañ ciy respecté lan lañ ci respecté wul ñu xool naka lañ koy jubbantee naka lañ koy defaraatee ba mu baax euh, li beneen problème bi ñu waxtaanee tey mooy problème mu sécurité bi nga am ne xam ne moo am ci suuf

dala guñ nag ça veut pas dire que du ñu dal bala mu ñoo dal ñu jóg taxaw loolu moo waraloon waxtaan bi pour ñu waxtaan ci te wax jigéen ñi lan mooy seen taxawaay ñu waxtaan ak suñu mbokk yi waxtaan ak suñu doom yi parce que bu ñu nee terrorisme ci suñuy doom yi lañuy ñuy recruter ci suñuy doom yi la ñuy jaar di leen yóbbu ñu fexe waxtaan ak ñoom éduquer leen conscientiser leen wan leen yenn danger yi pour ñu bañ a doon de proies faciles des proies faciles pour les terroristes des proies faciles pour ni nga xam ne c'est des recruteurs donc euh, fondamentalement donc loolu la ñu waxtaanee tey wax ne taxawaay jigéen ñi loolu la war a doon. waaw ah, jërëjëf ah ñu ngi ci ambition bi. ñu ngi ci ambition bi xëy na dafa jotagul xëy na doole ji ñu war a am amaguñ ko mais ñu ngi koy sàkku parce que li ma wax nee na euh, confédération pour la démocratie et le socialisme dañu taxawal juróom-ñaari parti dañoo war a boole suñu doole. def suñu unité war a taxaw ñun tamit mën a euh, uti nguur gi mën a uti pouvoir bi donc bañ a doon comme li ngeen di wax des faiseurs de loi mais nous sommes toujours euh, nous ne sommes pas des partis comme on dit congrus et euh, donc dans cette dans toutes les coalitions boo gisee pouvoir bu fi amee ak pouvoir bu mu fi teg gauche bi rôle bu essentiel la fi joué jox naa exemple alternance bi am ak Ablaye Wade Ablaye Wade xeex na ba sonn plus de 20 ans muy pouvoir bi ba dem ba découragé ba mu découragé ñan ñoko jëli woon gauche bi sous la direction de da Dansokho ñoo dem ba pare daal di koy ni ko jot na dañoo wara and loolu am donc doole bobu am nañ ko on a une capacité de réflexion des capacités de réflexion on a des capacités donc d'élaboration on a des capacités donc parce que comme disait Mao c'est la moitié du ciel bon bien sûr on il faut la conquérir il faut qu'elle la conquière donc la femme elle est la moitié du ciel c'est une force incontournable Il yéen xam ngeen ko force de manifester dans nos foyers dans nos familles c'est le socle fondamental comme nous donnons un socle au sein de toutes les familles nous donnons un socle au niveau donc euh, de la nation au niveau du peuple, au niveau de tous les pouvoirs. Les, gens, euh, les femmes jouent des rôles essentiels. Donc ça, c'est indéniable, les preuves sont toujours là. Quand on parle même de mobilisation politique, les femmes en mobilisation. les grandes mobilisations, elles sont toujours présentes, elles sont toujours là. Donc voilà, donc nous devons leur Donc, nous donc leur donner. Donc,